ma chère ma ngi lay gërëm di la sant ci lu baax li nga xamante ni moom nga ma defal te yàlla xam na ni yow xam nga man xam naa fi ñu jaar sori na suñu jaar-jaar sori na nga nekk jigéen ju baax di ma muñal di ma suturaal di ma sagal di ma sëyal yàlla dogal nag nu am gan te gan bi ba ma la koy wax piit naa jaaxle naa ndax ku sañoon ku ne booy ut soxna a ah, balaa nga koy wax bala balaa ñu bëri de balaa nii euh, annoncé dañuy takk ba pare yëpp yëgandoo ko waaye man maa ngi sant sama jabar di ko gërëm ndax bugguma kenn jiituma ci yow bëgguma kenn jiitu ma ci yow dama la koy wax jaaxle naa loolu waaye yar gi ak dal bi ma wan teggin bi ma wan ak bëgg gi ma bëgg ndax man yaay sama lépp sama àdduna yaay sama lépp sama àdduna munuma am lu la gën munuma am lu la ëpp munuma am dara lu toll ni tarfatal ay nit bébé li tax ma jëndee la ko yow gis nga man ko ànd ak man ko ànd ak man ah il faut nga tamit top sama ginnaw soxna sii muy awa awa fal ku ñëw sa ginnaw lay top kuma ku bëgg li ma ku bëgg manam ma and ak yow ci jamm ak salam nan nan ma joxol cër sama aaw buru kërëm bi mi awa fal ndax yaay lépp te yaa fi ne nah, maa iya ngi wax ni ku la respecté respecté ma ku la respecté wul du ma nangu jamais muy am porte bu muy jàll ndax man yaay sama lépp maa ngi lay ñaanal di la xamal ni ma tey laa tey laa la gën a bëgg tey laa la gën a def sama xol ndax ànd dafa metti te c'est un long chemin ku ne ak la nga koy muñal te nit ñi ku ci nekk rek ak xol bi la yàlla may waaye maa ngi lay sant di la gërëm wax ni je suis très content de toi man ma vie c'est toi moi je t'aimerai ba jusqu'à la fin de mes jours sama àdduna yow la sama lépp yow lépp nag dénkaat naa la ko Mori yal na la yàlla fay yal na la yàlla sagal yal na la yàlla sama xol bi doo ci mës a jóg illaa yow diini man maa ngi lay wax ni lépp lu ma nar a taqale ak yow ci àdduna yàlla buñ ko gis yàlla na dem bàyyi ni waaye li nga xamante ni que suñu borom dafay am comme ni nga ko doxalee man ci yar ak teggin yàlla na nu bokkandoo wërsëg boobu bokkandoo xéwal googu ñun ñëpp suñu borom defal nu ko bébé maa ngi lay gërëm di la sant mu toll nii j'ai pas sax les mots avec moi parce que j'ai beaucoup de sentiments actuellement li may yëg mais je suis très content de ma femme et je le dis haut et fort